Yes. loolu nag wax dëgg neex yàlla bësam bii wane na ko ndax bësam bii nii nga gisee doomu aadama di fàq ñëpp raatuloo ñëw xàmmee woo chrétien xàmmee woo musulman ñëpp ngi ci biir ñëw jax soo nga xamante ne kon kooku noonu jikko wane na ko ñun nag mënuñu lu dul ñaanal suñu borom moom jéggal yàlla na ko suñu borom jéggal suñu borom mooy borom yërmande yàlla na ko suñu borom yërëm waaye daal lii lii nga gis nii ci biir nii wane na ni nit ki ku mu doon ak moom mooy nit nag doo ko xam ndax Sénégal mooy dëkk boo xamante ni dëkk mu yomba deewee la waaye boo deewee rek yaa baax yaa baax yaa baax waaye yaa baax bi ñu koy waxal dafa nekk lu dëgg ci ñun ndax wan loolu daal laa amoon nañu waaw mooy li may waxaat rek mooy ci jikko ji parce que jikko mooy nit bu sa xor rafetee te triché woo ku ne mën ngaa jëflanteeg moom looloo waral lii ah mooy li ma koy ñaanal. suñu borom mooy mooy borom jéggal yal na ko yàlla yal ko suñu borom jéggal suñu borom mooy borom yërmande yal na ko suñu borom yërëm waaye moom lii ma gis moom moom ci boppam ñaanal la ko lii bee ñaanal la ko grâce à Dieu, Dieu et de, la ville de Dakar, présenter mes sincères condoléances à la famille de l'artiste Jean-Paul Dalméda et par ricochet présenter mes sincères condoléances à toute la famille de la culture sénégalaise. C'est une très grosse perte et c'est la preuve que Jean-Paul, dans sa courte vie, a été un exemple a été une référence pour la jeunesse sénégalaise en général et dakaroise en particulier. Je présente mes sincères condoléances à toute la population des SICAP. C'était un enfant de la SICAP. Euh, nous sommes des enfants de la SICAP. C'est une très grosse perte pour la SICAP aujourd'hui. Et euh, nous prions le bon Dieu dans sa miséricorde qu'il accueille notre euh, jeune frère Jean-Paul d'Almeida dans son paradis céleste, qu'il lui pardonne toutes ses fautes et qu'il donne à sa famille la force de traverser cette dure épreuve de la vie. monsieur le ñu ko booloo nekk ci ah, bu ñu sant yàlla ah, ci turu conseil municipal bu ville de Dakar jaale njabootu suñu mbokk Jean Paul D'Almeida ah, jaale tamit askanu culture di leen ñaanal yàlla leen yàlla may xolu muñ ñoom ñëpp te di ñaan yàlla yàlla na yàlla xare Jean Paul ci àjjana yu gën a kawe te jégal ko ay bàkkaaram Jean Paul ci euh, dundam bu gàtt bi wane na fulla wane na fayda wane na jom ak gëm boppam ak gëm yàlla ko wolu yàlla loolu moo waral tey ngeen gis mbooloo bu takku tey ñëw di ko gunge tey ci armeel bi kon euh, yàlla di suñu borom euh, ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe te fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jóge gërëm leen sant